jërë ngeen jëf mbokk AFT TV ñu dellu si ak yéen ci famille sénégalaise épisode 92 naa bi nga xamee ne nag nga xam ne moom mooy Fanta Seydi dem na Bel-Air ba nga xam ne ñi nga xam ne mooy voy yi soxna Batour fekk ko fa lañ ko fekkee ci kaw lal bi daal di koy xëcc diri nag wàccee ci suuf ci ne simil si yére yi ci ne malal moom ndekete moom tamit teg beneen plan ci la ñëwee taxaw seen ginnaaw ne leen sumiwul ndey yére yi ñu geesu ñoom ñaar ñëpp yem ci moom ndekete ba ndekete malal moom tamit mi ngi ànd ak gàngooram ci la ñu génnee nag ñoom it xeex jàppante foofu jàppante bu méttee métti restaurant bi nga xam ne moom la soxna Bator envoyé woon ci la ko mënal bat jatte noonu di ko dóor moom tamit il n'est pas laissé faire bati il bati xeex nañ foofu xeex bu méttee métti ci la fanda say di ndax bu ko fi deful kenn fi def ci la maar nag ne ah man de mënumaa accuser koo xam ne awma ci benn preuve nag wax dëgg yàlla balaa may accuser Bator moom il faut ma am ci moom waaw ci la ñëwee ci moom nag di ko laaj waa kër gi ñëpp daal ginnaaw jiñ nañ ko bëtóor mu ne nag na ñëw ci bëtóor léegi mu leeralal ko est ce que nag taxe na ci mbir mi laayal na ci am ne moom moo ko ci def ci la bëtóor nag daal di defee leeru innocent am rek wax wax nam daan waxee te man daal li ma jaaxal mooy lu ma lu ma wax ci kër gi kenn du ko gëm man su ma nee def ma dara kenn du ko gëm su ma nee maa def tamit ñëpp daal di ciy ànd kon man daal lu ma taxal daal damay wax rek ne maa def waaw la ko maar nag leerale nag ne ko nag na nga xam ne nag mbir mi su fekkee da nga cee wala nga laal wala nga am ci benn lien boo xam ne daal dem naa ba gëstu ko ba leer ma naññ na nga xam ne sama diggante ak yow moom sama diggante ak yow jeex na waaw daal di koy joxaate beneen promesse ndax naa maar moom tàmm na di ñu di ñu may yooy waaw digganteem ak bëtër moom sax sur mu ne nangam amee mu jeexal ko waaye nag tey ko jeex waaye du ko jeexal